alhamdulilah waral bi man mii rek la ñuy tudd waaye maa ngi leen di ziare ñëpp. yéen a ji bi aywaay sama turando moom mooy bi nabi wala rasulillah xulita bi noori tara atil badiya sayidina Muhammad فهو الأفضل من غفر أعظم نعمة الحيوان وطيب الدين يا سيدنا محمد أيوة تكملني أيوتين يلتي بيتنا ما تكون خلني خيال العالمين ما سلت ما سلت سيدنا محمد baay yaa dal ko sa islam au Sénégal. Bon. Issu de la lignée directe des Thierno Siwol de par son père bon. et des Almami de par sa mère. de Eliman Nega. Bon. Almami Mamadou et de Almami Mamadou. de Abdoul Khadri Kane. de Eliman Boubacar Kane. de Hamidou Touré Kane et de Eliman Foulani Kane. À qui Cheikhna Cheikh Ahmad Tidjani Aboul Abbas a transmis la tariqa Tidjani sans intermédiaire. Source Kashful Hijab d'Ahmad Choukaï. La Fondation de l'Islam s'active énormément dans les actes de bienfaisance. Les œuvres les écoles franco-arabes, les districts sanitaires, les groupements de femmes au développement et tellement d'autres, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Tout ceci dans l'amour, l'esprit de partage et d'entraide, de solidarité et d'aide au développement des jeunes, des femmes et enfants. De rappel des idéaux islamiques pour ainsi bâtir un monde meilleur. Honorables invités, bienvenue encore une fois et excellente soirée à nga mën a ñëw ba nga mën a ñëw teewal ko ci bis bii nga xam ni mooy bis bu mag bi xam nañ ni tey bis bii bis bu kat la depuis barki démb ba démb ba tey mu ngi taw taw yu métti ci dëkk bi Dakaaru ak li ko wër dafa xat xataay bu métti kon bu saal bi toll nii mbooloo bi toll nii ñëpp ñëw ak mbégte am na luy rayonné ci kanamam. am na luy rayonné ci kanamam. loolu am na lu ko waral. loolu am na lu ko waral. mooy miroir du islam. mooy miroir du islam boobu. muy muy préparé muy taxawal. muy taxawal di préparé. muy wane muy wane. muy jëf muy jëf. muy liggéey muy liggéey. miroir boobu miroir boobu. moom moo fës. moom moo fës. làmb suñuy xar-xaram mu gis ci moom ba dugg ci détail bi làmb bi ñëpp kon Cheikh Alhaji Omar jërëjëf sa taxawaay rafet na Sénégal fii rafet na ca Fuuta ba nga dëkk waaye fii ci Dakar rafet na lool ku gis liggéey bi ku gis liggéey bu am solo bi ni nga ni kii kii kii am na yar bi am na tekki bi waaye am na may nag xam ne lu particulier la am na jotaay xam ne nit mu sopp mënu ko ko dajale am na juddu bu rafet am na di sant di gërëm sama dëkkandoo yi waa Yoof yi sëñ ngi nii di kilifa bàyyi yitteem yëpp di sama dëkkandoo ñëw teew soxna Xadi ànd ak forte délégation sama dëkkandoo yëpp ñëw teew soxna ummu ànd ak ñi mu am ñépp ñëw teew kon nag jotaay bi jotaay bu yaakaar loolu ku ne xam na ne jamono xat na jamono Cheikh Omar Sall ñu ngi lay ziar jotaay bi xat na si xaaj Maodo Diop di mag àndoon ak Serigne Mansour bàyyi léppam ñëw teew ñoom soxna Arwa Mamadou Gollo yor ay kuréel tuddee ko Cheikh Omar Kane koolaanu diine def ci yu baree bari Ahmadou Koumé yit de Cheikh Omar Kane tey ñi fi daje yàlla rek a leen mën a dajale fi ci bërëb bi waaye damay ubbil suñu gan gi di mufti Abdourahmane Sougoudou moom du moom moo ma njëkk a invité Côte bi déedéet soxna suñu wax Seyda Hawa Jiré moo ma njëkk a invité ci laa ko xamee moom jëmm ju tedd ji di mufti Abdourahmane Sy Dabakh nekk nit ku yàlla baaxal yor xol bu laab bu set bu sell ku baax ku ne boole na maag moom Alpha Blondy mi ngeen di dégg moom moo ma boole ak Alpha Blondy indi ko ba ci man ma jox ko par ci kon moom mii jàmbaar la kilifa la ca Abidjan keroog maa ngi ci rawdu Cheikh Sidi Ahmed Tijani yi ku ma dajal ci kilifa yi Côte d'Ivoire yi ñoom Cheikh Aboubacar Xayrawaani ki ñu may njëkk a laaj mooy ani sa xarit mufti Abdourahmane Tidiane yor xol bu laab lu mu bëgg a wax da koy wax amul complexe nekk sang nekk jàmbaar kon bu bàyyee yitteem dag lépp a ngir la ngir bis bi ngir miroir de l'islam ànd ak forte délégation loolu dama leen di ñaan ngeen santal ma mufti Abdourahmane Tidiane kilifa diine yëpp a fi teew comme ni ñu ko waxee ku lim juum Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu ngi lay nuyu bis bi la muy xat xat xat xat fa tabarakallahu jàpp ngeen tëbaay yéen waa Mirwaaru Lislaam damay bañ jaaraat fi ñëpp jaaroon ndax ñi ñu waroon sant gërëm leen Cerno Ahmad sant na leen gërëm na leen maa ngi wax waa Mirwaaru Lislaam man ak yéen incha allah ba yawmal qiyaama dinaa jàpp te bàyyi yéen it ngeen jàpp te bàyyi ñu ànd liggéey lislaam oustaz Pape An ñu ngi lay ziar jëmm ju baax la ba mu yëgee bis bi matul ñett fan waaye da cee def vidéo bàyyi yitteem dafa amoon programme ñëw teew oustaz Modou Fall tamit kadalik kon nag Sénégal jàmm rek a fi xel soxna Asi sama mooy sama aawa man ñaari siyel lañ ma may soxna aasi bu maam aas soxna umma mooy sama ñaareel fa tabarakallahu di sëtu Cheikh Sidil Hadji Malick soxna aasi ndong ñoom suñ Amadou Wele moom it bàyyi yëppam jóge ba ci waawoon ku lim rek juum cerno waaye mbégte kontante di wax waa miroir de l'islam ci gàttal dinaa leen jox cellule bu nekk billet ngeen tiire ko ci yéen ñu ànd dem fee ziyaara ci Cheikh Sidi Ahmed Tijani li ci août bi lay doon ñun ñu ànd dem ziyaara ji Cheikh Sidi Ahmed Tijani noonu lañ koy defee ni ko def di ko def alhamdulilah ba ñëpp mat incha allah ci kattanu yàlla ak baaxam waaw di ngeen dem incha allah man nag fa tabaarakallaahu li ma leen waxoon bëgguma liggéey ak banque waaye mënta ñàkk bëgguma liggéey ak banque ndax financement yi ma jox yëpp musul jaar ci loxo banque gëj naa ci ak membre miroir de l'islam yi soxna awalaa wóolu yëkkati jox ko mu joxal ma financel ma ñëpp yónnee ma ay vidéo yónnee ma ay photo loolu leer na waa miroir de l'islam waaye nag jamono buy dox dangay ngay ànd ak jamono financement yu ma joxe yëpp musuma cee laaj benn intérêt te li banque di joxe dama leen di jox délai bu ëpp boobu jox nañu leen ay formation kon ni ko soxna Awa Ba waxee ngeen liggéey ndax diine balaa ngaa dund diine dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay am foo kor am foo jàpp loolu bu amul rek sa dund diine du yomb caution bi banque bi laaj joxe naa ko pour waa bi ñëpp mën a am ay financement ci kattanu yàlla ak baaxam bi ci des nag dañuy teewul mufti Abdourahmane Sougou Chérif euh, waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cherif Sidi Diagne ñu ngi nii toog xel dafay fàttu xel dafay fàttu Omar euh, euh, Serigne Omar Diaw di borom kër soxna Awa Ba maa ngi koy sant di ko gërëm ndax moom moo yombalal mission wu soxna Awa Ba délégation bu rëy bay aale bu ñu noppee rek da ngeen ñi ñu war a sant ñëpp ngeen sant leen ndax bu ñu bëggee sant rek jotaay bi yëpp day doon cant waaye yàlla mi am sañ-sañ. bàyyi nañ leen ak yàlla mu teg leen loxo Mufti Abdourahmane vous donne la parole on vous dit soyez la bienvenue dans votre pays le Sénégal tout le Sénégal vous dit bienvenue j'ai de parler de vous je dis c'est pas toi qui es la première personne qui m'a invité en Côte c'est Seyda Hawa Dieng on s'est alhamdulillah C'est Dieu qui l'a fait. Tu es au grand monsieur. C'est toi qui m'as présenté à Fabio. Tout le monde sait ce que tu travailles. On a voyagé un peu partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Espagne. Tu es en de prêcher la bonne parole. Aujourd'hui, vous êtes l'invité du Sénégal. Tout le monde te dit soyez les bienvenus. L'islam est une religion de tolérance et de partage énorme. C'est ça que tu prêches. l'islam est une religion qui intègre toutes les dimensions de la vie humaine, aussi bien matérielle que spirituelle. L'islam est une religion pleine de sagesse et d'apaisement. Nous, notre fondation s'appelle Miroir de l'Islam. Ils t'ont accueilli comme il faut. On connaît qui tu On ne prend pas, on ne monopolise pas la parole parce qu'on sait qu'il y a saisons de pluie. Il y a beaucoup de pluie. Il y a des gens qui ont quitté jusqu'au Fatick les cellules, jusqu'au Kaolack, jusqu'au Mbour, partout dans les régions du Sénégal pour assister votre arrivée. Cheikh Moufti, vous avez la parole. Il faut prier pour le Sénégal, il faut prier pour le miroir de l'islam, il faut prier pour tout le monde. Vous avez la parole. Ya Sidi, Ya salli ala sayyidina muhammad al-faatihi lima ughliq naam wal xaatimi lima sabaq naasir al-haqqi bil haqqi naam wal haadi ila siraatika al-mustaqim naam wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim naam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم صلى الله عليه وعلى آله نعم وأصحابه نعم وأقربائه نعم وأهل بيته نعم وأولاده نعم وذرياته نعم ومحبه نعم رضي الله عنهم ورضوا عنهم أجمعين مرحبا asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Moi, je n'ai pas bien entendu. Naam. J'ai j'ai un mal, j'ai un petit mal parce que je n'entends pas bien. Donc quand les gens parlent, moi je n'entends pas. Mais s'ils si ont crié un peu, je peux entendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, j'ai mal ce soir. Non. Ici, je ne suis pas venu me montrer. Ah. Je ne suis pas venu vers vous comme un moufti. Non. Je suis venu ici comme votre frère. C'est dit J'aime le Sénégal. Non. Et tous les Ivoiriens aiment le Sénégal. Ahlan wa sahlan. Vous êtes exemple. Non. En islam. Ici, ce qu'on cherche. Non. C'est euh, comment on appelle, c'est le de tous les musulmans mm. du monde entier. L'islam de paix non. et d'amour. Quand tu viens au Sénégal, Naam. tu trouves l'islam de paix Naam. et d'amour. Voilà. Et moi, je ne comprends pas Wolof. Mais il y a mon frère ici, mm. mon cousin du même village, Naam. qui est Sanogo. Voilà. Je vais parler un peu en français, je vais l'appeler, il va venir. Il va traduire. Mm. en Wolof, ce que moi j'ai dit. Ce soir, euh, la Côte d'Ivoire nous regarde. Quand mon frère et ami le Cheikh Omar Khan, il m'a invité de venir. J'ai appelé le frère cadet du président de Côte d'Ivoire, qui est Alassane Ouattara. Non. Parce que euh, chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes l'air imam du village. Non. Donc pas quitter en Côte d'Ivoire sans informer les autorités de la Côte d'Ivoire. Je demandais sa bénédiction. Non. Et le roi de chez nous, au village. Non. nous sommes des imams de la BAF. Le micro, s'il vous plaît. Euh, miroir de l'islam. Je veux que, euh, écoutez-moi un peu. S'il vous Khan. Je répète, Cheikh Omar Khan. Il est au Sénégal. Non. Mais on connaît pas vraiment. Je sais pas si vous connaissez vraiment Cheikh Omar Khan. Est-ce que vous le connaissez? Ah. D'autres Parce que moi, je ne le connais au Sénégal. Non. Je ne le connais pas, euh, on appelle euh, aux États-Unis. Non. On s'est manqué aux États-Unis. Non. On s'est retrouvé en France. Non. Cheikh Omar Khan. Non. il a une dimension spirituelle. Il faut que tu sois homme de Dieu pour voir ça. Allah. Dieu ne choisit pas tout le monde. Dieu choisit les hommes parmi les hommes. Wallahi billahi la ilaha illa huwa. Dieu a choisi Cheikh Omar Khan. Khan. Quand il dit mon nom en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qui le Moufti. Quand on dit Moufti Abidjan, tout le monde sait c'est qui. C'est qu'on peut pas dire en Côte d'Ivoire. Je suis le seul qui dit. Dans le monde entier, partout dans le monde. Quel Omar Khan. Il a créé quelque chose non. qui de l'islam. Je suis venu trouver qu'on dirait c'est les femmes qui sont beaucoup dedans Allah. que les hommes. Mm. Parce que quand Dieu t'aime, c'est les femmes qui vont te suivre. Sikatara. les hommes, là, quand c'est chaud, ils fuient. Hein? Ils fuient avec Et ils sont pas prêts. Oh, Femme, là, quand il veut quelque chose, elle est dedans. La première femme qui s'est sacrifiée pour le prophète Mohammed, vous le connaissez, c'est elle qui s'est donnée. C'est pas Khadija. C'est Il y a une dame qui a dit Soumeya. Khadija, elle s'est donnée au prophète Mohammed avec tout son argent. Elle a respecté le prophète. Elle ne, parce qu'une femme, souvent, quand a l'argent, elle veut montrer aux gens que c'est elle qui a l'argent. Mais Khadija Kubra n'était pas comme ça. Elle s'est donnée au prophète. Elle a tout donné au prophète. Elle a montré au prophète, c'est toi qui es le supérieur. Or que c'est qui est le supérieur. Euh, euh, euh, comme on appelle... la présidente naam Hawa tu as le nom de notre mère nous tous notre grand-mère qui a enfanté 20 enfants les 20 enfants ils étaient des jumeaux Parce que c'est un grand homme qui arrive. Non. On doit l'accueillir. Non. Comme il le faut. Mm. L'islam, on doit se respecter. Non. On doit se donner les valeurs. Non. Donc euh, je dis non. au petit-fils de Cheikh euh, Al-Hajj Malik Sy, bonne arrivée. Non. Merci beaucoup pour votre déplacement. Non. Nous sommes les Ivoiriens. Mm. on regarde tout ça, ça nous plaît. Non. Parce que vous avez donné euh, la valeur à, l'islam. Au Sénégal, quand tu viens, même si tu n'aimes pas l'islam, tu vas aimer l'islam. Ah, l'islam modéré. L'islam qui, ne stresse pas les gens. Hmm. pour dire que non, il porter ça, tu vas sauter comme ça, tu vas rentrer comme ça, il sauter pantalon, il laisser une barbe. Il a pas ça au mm. Sénégal. Mm. Tout le monde en l'aise au Sénégal. C'est pour cela vous allez rentrer vite dans le paradis. Sabikouna, Sabikouna, c'est les Sénégalais. Oula C'est les Sénégalais. Donc notre frère euh, Cheikh Oumar Khan. Je l'ai invité en Côte d'Ivoire. Il était à Dubaï. De Dubaï, il est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu, eh, comme on appelle, euh, représenter le Sénégal. Il a fait beaucoup de bénédictions pour nous. Mais les grands hommes ne dorment pas la nuit. Non, non, non. Mm. tu perds tout. Non. Mais quand te dit que tu es un cheikh, un guide religieux, tu dois plus dormir la nuit. Man talaba al sahira layali. Uluwul ka'ab bilihima min awali. Allah. Al-ilmu zinatul Wa bihi yukram hajwata. Vous voyez, les grands hommes ne dorment pas. Hmm. Un jour, je suis rentré dans la maison dans mes prières. Non. Parce que moi, je peux faire déjà deux semaines, trois semaines, je suis dans la maison. Et que en train Dieu. Non. En rêve, j'ai vu mon frère, mmh. Cheikh J'ai vu lui aussi, il, en était en blanc, non. il Non. Hmm. c'est la même chose que lui aussi disait. Et lendemain, je l'ai il dit, mais cher, tu fais quoi Il dit, ça fait déjà deux semaines, je suis de faire quelque chose. Il dit, c'est pour cela que Les grandes dames, on vous reconnaît en islam. Ne rentre pas aujourd'hui dans le miroir de l'islam. Et puis demain, hmm. vous êtes fâchés, euh. vous êtes partis. On n'abandonne pas Dieu. On ne se fâche pas contre Dieu. Quand tu es dans une association, il y a tout dedans. Il ne faut pas écouter ce qu'ils vont te dire. Il ne faut pas écouter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, à Médine, il a appelé tous ses compagnons, Ashab al-Rasoul. Il dit, Allah unabbi'ukum bi akbar al-kabair. قلنا بلى يا رسول الله قال نعم. الاشراك بالله نعم. ووقوق الوالدين نعم. والشهادة الزور فما زال يقررها حتى قلنا ليته سقط Les ont dit à détruire le monde. J'ai entendu, on m'a vu. Si vous suivez notre frère, Cheikh Omar Khan, vous allez obtenir ce que vous cherchez. Parce qu'il est venu vers vous. Il a parlé de Dieu. Il fait des dons aux orphelins et les veuves. Ce qu'il fait, Adatou Rasoul, le prophète donnait aux gens, lui n'avait rien. Mais aujourd'hui, hmm. nous on mange, on ne donne pas aux autres. Ce qu'il fait au Sénégal, il sait que c'est la même chose que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Moi, quand les hommes de pouvoir viennent me donner des choses, j'appelle tout le monde, hmm. je les donne. Et quand on donne des choses dans les cérémonies, je n'ai jamais euh, prendre aussi dedans. Parce que quand Dieu veut te donner quelque chose, ce pas devant les gens que Dieu va te donner. Non. Toi seul à la maison, Dieu va envoyer quelqu'un à te donner à la maison. C'est les griots seulement quand on les donne devant les gens. c'est leur mythique. Ah, Hawaou, je prie pour vous. Que Allah te donne la paix du cœur. Il faut pas regarder notre frère, le joli garçon. Parce que les pelles, en général, ils sont beaux. Mais lui, il plus beau. Oumoul Khair ton nom dit tout depuis hier nous sommes descendus au Sénégal vraiment on a mangé vraiment ceeb jën ah. le barbu même me disait que mais on s'en va manger ceeb jën vraiment on a mangé Oumoul Khair il faut être Oumoul Khair n'abandonne pas ton mari parce que depuis on ensemble il parle beaucoup de toi il parle beaucoup de toi. Parce que moi, Dieu m'a donné une femme que je l'aime. Mais je dis à ma femme que je vais marier une deuxième femme. Ah, il faut être véridique. Ah bon, je n'ai pas de au Sénégal, mais si je gagne, je peux marier. J'aime ma femme parce que c'est la femme qui donne la paix du cœur à l'homme. Quand tu vois Cheikh Oumar Khan en Côte d'Ivoire, a une grande dame derrière lui. Et le barbier dit qu'on est venu On t'a vu. Vraiment, tu t'es occupé bien de nous. On a bien mangé. Le sel n'a pas dépassé. C'était bien, bien, bien. Parce que quand une femme s'est préparée, c'est dans le ciel qu'on sait. Elle, vraiment, elle ah. ah. Et je vais donner le micro uh-huh. euh, euh, à mon frère qui est ici. Ah, Sanogo et les Sogodogo, ils sont dans même maison à Kong. Nous sommes des grands érudits euh, qu'on de Côte d'Ivoire. Quand on dit des shérifs de Côte d'Ivoire, hmm. c'est les Saganogo et les Sogodogo. Demandez tout, ils vous aussi, quand on dit des shérifs, c'est les euh, Kan, hmm. les Si et les Nias, euh, et, les, euh, comme on appelle Ahmad Bamba, non. de, de Touba. Donc, euh, euh, ah. des de Kan. Hmm. Vous voyez. Voilà. li taarafu mais inna aqramakum inda allahi atqaakum faut jamais dormir la nuit faut jamais dormir la nuit le chapelet peut trembler un pays sinon on était premier à dire au président Gbagbo nous allons te chercher avec chapelet les hommes de Dieu non arme fatale, c'est le chapelet. Le chapelet, on ne doit pas prendre pour se promener partout. Dieu dit, hmm. Udu'uni astajib lakum. Ne laisse pas ton chapelet. Non. Parce que tu as une femme claire à côté de toi. Non. Et tu t'occupes de la femme jusqu'à le matin. Non. Tu oublies ton chapelet. Ah, si tu as oublié ton chapelet, tes ennemis vont se, on appelle, se moquer de toi. Ils vont rire de toi. Ils vont partir te laisser. Un homme, un cheikh, un ostase, un imam, il doit prendre son chapelet à implorer Dieu. sabahan wa masaha approche-toi de Dieu fa inni qaribu ujibu da'wata da'i iza da'ani ud'uni wa antum muqinuna bil ijaba faut jamais craindre l'homme peut pas nourrir l'homme mais Dieu peut nourrir l'homme faut aller te cacher en, qu'on appelle dans le dernier village du Sénégal si Dieu dit Les gens vont venir derrière toi. Ils vont venir derrière toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est quitté à la Mecque, ils l'ont chassé de la Mecque. Il est parti à Médine. Il voulait se retourner à Médine. Dieu ne l'a pas donné l'autorisation de rentrer à la Mecque. Il a imploré Dieu. Non. Dieu a dit dans le Saint-Coran إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله إذا نصرك الله يا محمد بفتح أم القرى ورأيت العرب يدخلون في الإسلام جماعات جماعات من غير حرب wala qital ah, suis pas venu ici pour faire des démonstrations <laughs> je suis venu seulement vous saluer miroir de l'islam on vous appelle de venir vers l'islam de paix hmm. et d'amour. Vous les femmes, si vous êtes forts, Dieu avec vous. Et Ummul Khair, Je sais que tu attrapes bien, mon ami, non. mais je te confie encore, non. au nom de la Côte d'Ivoire, au nom du président de la Côte d'Ivoire et tous les jours de Côte d'Ivoire, quand tu prends micro non. et que tout le monde t'écoute, tu ne laisses pas micro, ils vont dire lui là, il sait parler, mais il n'arrête pas. Donc je m'arrête là, Alors. je donne le micro à mon frère pour qu'il puisse parler. Assalamu alaikum. Sano, Sano, appelez Sano. Oh, Sano, Simla, Fadal. ibn Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ibn Cheikh Hadji Abdoul Aziz ibn Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu di doomu Ndeye Mariam Sy bu Serigne Moustapha Sy Jamil bu Serigne Babacar Sy bu Cheikh El Hadji Malick nuyoo boobu. ni leen koy jaarale ci soxna Asiyatu Si mii bu maam a sàll eh, bu maam a si ndax ñi fi daje ci famille bi ñu bari Cheikhu Omar gisu leen moo tax ma toog ci gannaaw pour jàppale ko ci ci ñi nga xam ni jotu leen a gis ndax soxna Asiyatu bu maam a si bu Sëriñ Moustapha Si Jamil soxna Xadi Faal mii nga xam ni moom moom soxna umul xayri daanaka démb ba léegi toogul ndax organisation bi yépp mu ngi ci biir ñu bokk seen yaay ñu wëlbatikuwaat moom mee di di Xadi nekkaat jaam ci soxna umul xayri ndax yaayam bàjjanamam sunu mag ci ñenn ñi di bàyyi ci ñenn yi di alxaaji Mansour Ñang bu bàyyi Basiiru Ñang mu ngi fi woon ci ngoon ba léegi yàlla dogal na Pape Basiiru Ñang soxna Faat Si moo ko jur Faat Si mooy taawu maam Safiyatu Ñang ak maam alxaaji Malik magam bu jigéen moom la Sëriñ Mbay Abdul Aziz di bàyyu Pape Abdou mii denc muy Lalla Dieng mu ngi woon ci jotaay bi yaakaar naa ni ku tudd góor gi am net jéen tudd soxna Faat si mi bokk ak Serigne Moustapha si Jamil ragal naa ni am na koo xam ni ku ko jeex di ko fekk mu bokk ci délégation soxna Umul Xayri muy Ndey Maram Malik teew fii ci côté bu ne pour nga xam ni li composé kër Cheikh Al Hadji Malick yépp dañ fi teew waaye yàlla def leen binde ñoom bu ñu ñëwee fu mbooloo yam fa la ni yam euh, loolu moo day wax te turandoom wax ko ca xilaas ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na def bu ñëwee ci mbooloo fu mbooloo ma daan na doy loo foofa toog fa ñoom nag jikko yooyu moo nekk ci ñoom ñoom it di Pape Abdoul Aziz mu ngi ànd ak Moustapha Sourang Moustapha Sourang weesu na xarit ak moom ndax góor gi Cheikhou si bi doon denc soxna Zeynabu si bu Serigne Babacar si moo woy juram ñoo bokk benn ndey muy Pape Diouf Solom moom la àndal ñii dikk maak ñoom nag yàlla dafa dogal bu dee Pape Abdou mii ci wàll bàyyi laa ci moom waaye ci wàll bàyyi la ci man ci wàll it maam laa ci moom noonu laa ko nekk ci soxna umul xayri mii ndax moom mii di soxna ummu ak soxna aasi mi ku ci ne ameel nga ma sagaru njaam waaye nag noonu laa nekke maam ci ñoom bu dee ci soxna aasi mi jur soxna ummul xayri yàlla dafa def sutura mu yóbbante Maodo Diop mii di magum kër gi bi mu ko yóbbantee ci man yàlla dogal gisante wuñu ba yàlla dogal ma jot yóbbante ba ma xëye Tiwaawan ñëw fekk soxna Asiyatu ci Pikin bi ma ñëwee keroog maa ngi ko fekk mu ngi tëdd ndeke keroog lay mujjee giseek moom te lam ma doon doye it keroog daf ma wax ni ma dama am xaalis bu ma doon yóbbante pour ñu war a pentiraat fa maam Alaaji Maalik juddoo sa turandoo ca gaaya waaye jox naa ko soxna ndate ndaxte ba yónnee nañ ko démb waaye maa ngi lay dénk soxna ummul xayri ndax sama bàyyi sëriñ Mansuur daf ma waxoon ni ma bu ma faatoo ba am juróom benn weer yaa ciy tegu keroog bi ma ko waxee it fekk na sëriñ maam alfasi mu ngi lay nuyu di nuyu goroom jamaaleem doon ma jàmbat ni ma ndax gëj nga dégg soxna Asiya foofu fi maam Alfa fekk moom Serigne Maodo ñoo bokk oto jëm Jolof ceroog la mujjee wax ak ñoom teguñu ci ab diir yàlla def la mu dogal fi ma bëgg jëmit bokk na ci di nuyu Pape Makumba Makumba aan nga xam ni di nu yàlla boole man ak moom 1986 la ca Thiès muy koo xam ni doom la ci kër gi jarbaat la ci kër gi am leen teg ñépp ci taxawaay bu rafet nu xam ko ci moom démb tey soog di ñëw yaakaar naa 86 ak léegi def na ay fan waaye maa laa yan sarif la nii ma ko xamee ni laa ko mës xamee te it bariwul lu nuy gisee su ma jumul bi way juróom bu góor génne àdduna ma ànd fa ak sëriñ maam alfasi ca laa gëjoon a gisee ak moom dina ñaanal yàlla wér ak gudd fan layla sayyiduna wa mawlana muhammadum man naa la man naa la nayla wa ala wa ashaabihi غر المحجلين وشم المبجلين ورضي الله تعالى عن المسك الأزفر صاحب سر الأبهر والغوث النافع الأشهر قطب المكتوم والقاتم المحمد المعلوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني ساخي قلوب الخوم بكؤوس المعارف والمعاني وعن سائر الخلفائه مزون الأرباح suqaatil kuusi allati tunsi kuusal mudaami wa raax nuxayikum taxiyatan tayiba wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad nu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel bu baax a baax di nuyu sunu sang yu tedd yi toog nuyu sunu sëriñ sëriñ papa Abdul si mu sëriñ Babacar si mu Cheikh El Hadj si mu Seydi El Hadj nu ngi nuyu nu ziyaara di la xoolee sa jëmmi maam Cheikh Seydi El Hadj Malick di nuyu bu baax Seex Baay Ñas Abdou di sëtu Seex al Islaam radiallahu anhu di sunu sëriñ waaye di sunu xarit di sunu soppe Seex Baay ñu lay nuyu baax a baax Ñas di la jox wàcc waaye bi nga moom di nuyu Mouhamed Mufti di ko nuyu di ko ziyaara bu baax a baax a baax di nuyu sunu sëriñ Cheikh Abdourahman Mufti di nuyu sëriñ Amadou Wele mi gi léegi di sunu soppe di sunu sëriñ di sunu lépp waaye nuyu nag ki nga xam ni sunu teewaay tey bii moom la di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu soppe di sayid Cheikh Omar kan mu baax mi raahu llahu wa xafidahu min kulli baidin wa xarib suma naumu jamia almashaayixi nubala wal asatidati al ajillati al fiqaam mbokk yi di nuyu bu baax soxna Asi si bu Seydi Xaaji Malick si bu Seydi Mouhamadul Moustapha si mu Sëriñ Babacar si mu Seydi Xaaji Malick soxna Asi ñu ngi leen nuyu si di nuyu soxna abdul xayri si mu sayid mouhamadul moustapha mu sayid cheikh ahmad tijaani si mu sëriñ babacar mu sayid alxaaji maalik ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral di nuyu soxna xadi faal mu soxna kinne mu soxna umu mu soxna xadi mu sëriñ babacar si mu sayid alxaaji maalik soxna nday maram jéen mu soxna mu soxna Fànjaay maa béy mu soxna Fat Si mu sëriñ Babacar Si mu sëriñ Alxaaji Malik ak soxna ma jooja njëkk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ndokkeel sëriñ si Omar yàlla yàlla yokk la dëgëral lislaam bii ñu ne ay ci ci fulla la mësi dox waaye mbooloo mii nga jiite miroir de l'islam nga xam ni yemale woo ko ci réew mi génn na réew mi dem bitim réew loolu yitte la benn góor daf ni ma doom pas-pas bi max am ba tabax jànji bu jullit ñi noonu pas-pas lu ñu song daan bi max xam nga max xam nga max boo ko lëggee mu dee waaye boo demee ci bi di fa fekk ay janj yoo xam ni max a ko defar mu ni ma pas-pas bi max am ba tabax janj bu jullit ñi amee noonu pas-pas lu ñu song daal waaye sëriñ Cheikh Omar sa pas-pasu bopp sa yittey bopp ginnaaw bi nga bokkee fu baax am na loo xam ne sa yittey bopp la nit du wax ni di woo mu jur di sama baay mbaa di way sama maam dal di toog rek jàpp sa ñàpp faw jug am laa taqul asli wa fasli abada innama aslu fata maa qad xasal nee na cosaanul as cem mooy li nga amal sa bopp benn waykat arab dafa wax ni sa yazkuruni xawmi iza jadda jidduhum wa fi laylati zalmaai yuftaxadul badru nga fexe ba boo fi bàyyikoo ñu lay bàyyi xel ak fàttaliku faaw nga am yitte te lislaam nag moom ci fulla la mësi dox al islaamu diinun jaamiun bayna tarafay dunyee wal wal qaaidatu fi zalika xawlihi taala wa axsin kama axsana allahu ilayka wala tansa nasibaka min addunya yàlla nee na yow doomu aadama nanga rafetal jëme ci sa bopp kon ñun yàlla ni ñu rafetalee jëme ci yow waaye rikk waay nit cër bi nga am ci àddina bu ko fàtte kenn ku nekk ci ñun dafa am cër boo am ci àddina yàlla ne bul am nga fi kenn ku ne am nga cër ci àddina yàlla nee na cër bi nga am ci àddina bul ko fàtte kon sëriñ Cheikh Omar nu nga lay ñaanal gudd fan di la ñaanal wér bi ñuy ñëw mbégte la nu bu ñu la gisee am mbégte ci yow bu ñu nekkee yow am mbégte bu ñu àndeek yow gën laa naw ndax sa jikko kon kóllëre googu yàlla yàlla sàmm ko ci darajey rasulullah yi mbokk yi sunu ci rasulullah yal ko yàlla gën a doon gis nga boo yëg yi ne yëg nga ko ci sa xol jàppal ni am nga sauvetage su àddina ak alaxira gàcce la ci jullit nga yeewu ba gëmmentu nelawaat te julliwuloo benn yoon ci rasulullah gàcce la ci jullit nga yeewu doxi say soxla li jëndi sa bopp reer jot nga reer waajal tëdd nelawaat journée bi yëpp vingt-quatre julliwuloo benn yoon ci rasulullah gis nga faaw nu xam ne mi ngi ak nun moom rasulullah alxaaji Mansour Borom ca Mbuur yal yàlla yokk leeral fukki fan ak ñaar ci weeru koor te mooy bisu Badar daraan ànd ak njabootam gépp dem ziyaare ji Seydil Xaaji Maalik su àggee yenn saa yi mu ni leen toog leen xaar Ceerno newu fi Alaaji Maalik mi ñuy seet si ziyaar si newu fi mun na faa yendu ba jant so day jékki-jékki rek ñi leen Ceerno ari góor gi ñëw na fii waa ma ne góor gii nga xam ne dundam yëpp rasulullah yi moom Seydil Hadji Malick mi nga xam ne day génn di doxi ay mission bokk yi rawatina rasulullah maami kii baay Seex al Islaam radiyallaahu anhu baay weeru gàmmu su ranteru soo bëggee loo soxla mu jox la ko da ñëw tabam nga yokk ci weeru gàmmu daan jaabante mbedd yi Medina nan hëni an li Ibrahim laaxaa hilaalu hilaalul badaa li naasirina jamal sama weeru xarit bi feeñ na weeru soppi bi feeñ na te mooy rabiul awwal fukki fan ñaar bi jamono puukare nga xam ni ñeenti temps moo am dafa am faslu chitaa yi faslu fas faslu xariif ak faslu rabia jamonoy tàngaay Seydina Muhammad judduwu ci jamonoy mbóoye Seydina Muhammad judduwu ci jamonoy sedd Seydina Muhammad judduwu ci nabee ngi ñëw printemps mooy jamono bi climat bi normalé fiix lu la neex nga sol ci la rasul ay ñëw yërëmtu boobu nga xam ne xereñ ak yàlla léegi rek maa ngi koy wax ñu papa Abdou Aziz mi man leen yàlla xereñ ak yàlla la kenn xamaluma doon dama jóge màkk man maa ngi ñëw bi mu ñëw yàggul waaye sama yoon rek bii ak bii nii laay toog jàkkaarloo kaaba gi di xalaat rasulullah di xalaat kaaba gi ma ne ay yonente bu dëkk bu dëkk bu tëddoon màkk gii mu juddoo bu mu tëddoon ñu ni raw rasulullah yi nekk fee kaaba gay nekk nii dana xatte ah waaye xereñ ak yàlla mu génne ko cent cinquante kilomètres mu taxaw buntu màkk ne yàlla ñu ngi may génne dëkk bi ma gën a bëgg kon yàlla teg tegtal ma dëkk bi nga gën a bëgg yéeg giléem nga giléem nga nag bi ñu laajee si jël Xaji Maalik ndax vérifié nga ba xam lu mu war fas la mu ni dee giléem la ndax vérifié nga ba xam nu mu tudd sa mam ne xam naa la mu war na mu tudd xat baa ulu tudd daan na war mbaam ma nga tudd yaafuur daan na war baax la ma a tudd dul dul façon mu njëkk xale ma nga tudd sax xeex na ñaar fukki xarit juróom-ñaar yónnee ñiit fukki xarit juróom-ñaar mooy Saraya Abdou Zammi rasin set la miim 40 yoo xam ne daal yónnee mais demul Seydil Hadji Malick na 40 set la njool Màkka juróom-ñetti fan mu dem Médine ci yoon bi huit jours la def ci yoon bi domin samani ayatin jaaba ala ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla fayal bi muy dem mi ngi am cinquante deux ans olo fay wax ni ku say teraanga yokk say noonu yokk yàlla fan la cat olo wax ni ku say teraanga yokk say noonu yokk ku say teraanga noonu yokk sama yaay jàll baay maa ngi lay nuyu yaay taalibe yàlla ni ko bala ngaa waar waa koñ beeg waa dëkk bi di wax ak kenn waxal ak say mbokk ba noppi wa anzir ashirataka al aqrabina waaye olofay wax ni bàjjan mooy bàyyi ala idris ziyaar la sama xarit bàjjan mooy bàyyi ndijaay ndijaay mooy yaay mooy nii ji yaay ci yow abdoulaye bi jur dee na Abdoulaye bi ko jur dee na Abdul maam ja dem na Abdul bi muy dee Abu Taalib la ko dénk Abu Taalib ak Abdoulaye bi ko jur bokk ndey ak baay moom la woo ne ko malgré xam naa ne ku néew doole nga amoo xaalis waaye xale bii yaa ma ci doy pour yaral ma ko parce que da baax da nga am ñeewat bàjjan yi ni ko li la yàlla wax woowal ñépp mais bul woo aboo lëhëb mii am na ñoo xam ne seen xol dafa feebar moo xam da ngay ànd ak ñoom am na xarit boo xam ne xam nga ni kii sa xarit la mënoo koo bàyyi mais xam nga ni dafa am problème xol am na ñoom dañuy soxor Abu Taalib ay sëram ay sëram ñoo ne ñoo ne rasulullah yi woowal ñépp mais bul ko woo parce que dafa soxor ay sëram di umay mata di barrata di bayda di atika ak arwa ak safiyatu mi nga xam ni bàyyi la bokk ak abdullahi mais juróomi yi mën a njëkk a limal ñoo ko abdullahi mi jur sayyidina muhammad a bokk ndey ak bàyyi woowal ñépp may bu ko woo waaye xoolal baaxu rasulullah gën a yiw ñépp gën a baax ñépp gën a sell ñépp gën a tedd ñépp gor ñi moo leen gën di gor moom rasulullah nabi ni yàlla bi mu may wax waxul ci sama mbokk yi ma dindi ci kenn dafa ni ma wa anzir ashiratak al aqrabina te sama mbokk mbokk yi sayyidina Muhammad woo mbokk yëpp ñu teew Abu Lahab ne ko gaawal li wax ñu li ñuy doye rasulaay jug taxaw ak yarga dafa yaru moom rasul dafa yiw ñu ko daan def lu sew te bëggul lu sew xam nga ko yiw nga koy def lu sew xol bi ngay gaañ dafa yiw moom yonent bi mu jóg taxaw ni leen ndax su ma leen waxoon ni am na lu jóge ci ginnaaw dëkk bi ñëw di ngeen ma gëm ñu ne ko ah kay ndax yow bañ la xamee ngay Muhammad ak léegi loo mës a wax dëgg la loo mës a wax dëgg la dix-huit ans la màkk dajaloo ne ko yaa yow la nu kuy dénk moom ngay dénk kuy wax secret moom nga ciy waxtaanal ku bëgg loo bëgg mu sotti muhammadu rasulullah keroog bi ko abu taalib di xutba diggante ma xadija xadijatu bintu ca biir xutba ba dañu fa wa euh, muhammadun mimman xad araftum xarabatahu waxat xataba xadijata binta xuwaylidin wa bazal laha ma ajiluhu wa ajiluhu min maali kaza wa huwa daal di waat ne wallahi baada haza lahu nabun azimun wa xatawun jalilun jasimu suma sibi jaha wa fi riwayati fatasawajjaha keroog la abu taalib kenn du ko tolloo benn góor fii ci màkka lu dul ni sut na la te bi mu koy wax loolu mi ngi am vingt cinq ans deux mois quinze jours yàlla yónnee ko abu ta abu lahab ne ko waaw loo ñu mës wax dëgg la loo ñu doy waxal mu ni ma ni ndax su ma leen waxoon ni am na lu jóge ci ginnaaw dëkk bi ñëw di ngeen ma gëm ñu ne ko ah kay waxal mu jël baaraam ba taf ci dënd ba ñu leen ana rasulay xaqan bal ana xaatimi nabiyin wa sayyidil mursalin man la man la yàlla yónni maa Abu Lahab mi ñu bàjjen yi waxoon ni bu ko woo daa bon dafa soxor moo nu ñokkit jug taxaw ne ko waxaatal li nga wax mu ne ko man ndawalu yàlla la yàlla ma yóbbi xam nga lu ko wax daf ko saaga daf ko daf ne ko tabban lak parce que boobu arab bu la waxee tabban daf la saaga tabban lak alihaza jamaatina toskare ñeel na la yow li nga ñu doy ñii war a liggéey ñii war a xëy ñii war a gont nga dajale ñu ña ma yaakaar ni Muhammad ibn Abdullahi lu ne nga ñuy dajale nga naan yàlla la yónni yàlla bu doon yónni keneen la yónni mais du yow sa waa ji sëgg ak kersa ga Jibril ñëw déey ko ne ko yàlla ne sa baay bu la saagaa doo fayu yàlla ne moo lay sa fayu saaga Abu Lahab fukki saaga benn tabbat yadaa abii lahabin ma tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahabin wa imra'atuhu hammaalatal hatabi fii jiidihaa hablun min mais xam nga problème bi lan la waaye xoolal mbaaxu rasulullahi fekk moom taawam di roqaya may na ko utbatu mi nga xam ne mooy taawu abu lahab avant muy wax lii jël ba may ko umu kulsum doomam ñaari doomam la jël may ñaari doomu abu lahab waaye bi bi wàccee abu lahab daa dem këram ne doom yi maa leen jur ñu ne ko yaay sunu baay ñaari doomu muhammad yi ngeen takkoon bërgi démb laa bëgg ngeen fase leen léegi léegi léegi mais problème la jullit ñi amoon ku bon kii ni mu mel ba yàlla rëbb ko ci at alxuraan rëbb seen yaay ndax sëy ñoom jot nañ ca am doom ñu ni sax jotuñu ko consommé sax ba tey am doom dañoo defoon pas-pas bi rek waaye jot nañoo jote ak ñoom umu jamil fekk jol mànk toog umu jamil toog ak sidna Abubakar mu ne Abubakar ay na musammam xam nga Muhammad ceeb ci boo koy firi mooy ana ko nu sant ki ay na Muhammad ana ko nu sant ki iñaane naa wax ana ko nu sant ki mu ne ko ay na musammam ana ko nu ŋàññ ki dégg nga nabee ngi toog ne xàmmeewu ko yàlla benn kiiraay su ma ko fekkoon man lay saaga di saaga sama jëkkër ah naa ko wax nangam ak nangam ne wërëñ Abubakar jaaxle geesu Rasulullaay ne kii xàmmeewu la mu ne ko xàmmeewu yàlla def kiiraay sama digganteeg moom Jibril na lay jëpp ne ko asalaamaaleykum ya Rasulullaay yàllaa ngi lay nuyu yàlla ne nga wax Abubakar ne ko kii nan la musamam kii du musamam de kii Ahmed la kii du musamam de kii Hamid la kii du musamam de kii Mahmoud la kii du muzammam de kii mooy muhammadu rasulullahi kii la sant fii sant ko fële kii mooy rasulullahi waaye utbatu doom ja xaar utbatu doom ja abu lahab ba ko jur mi njool màkk mayoon taawam utbatu daa fekk njool màkk toog barakallah utbatu ñëw fekk sayyidina Muhammad toog mu poño ko ba simis ba xotti ko mbokk yi Utbatu dafa poñe yonent bi ba simisam xotteeku dafa dafa jekku kaw ba noppi taamu suuf moom yonent bi ne wëriñ Rasulullah yëngal boppam geesu Abubakar ne ko ah li ma jaaxal de mooy moom gayndee koy mujjee tooñ baaxul mbokk yi almartabatu la tusaamih nit da koy tooñ mu ni tekk nga ñëw ne ko baal mun la baal naa la mais martaba bi moo la dul baal da lay fàtt abul yëg loolu ne caravane bi jëm Saam na ngeen ma gardeel Utbatu ñu dem ba ba war a tëdd noppalu ñu def benn cercle benn rond ne Utbatu tëdd ci digg bi balaa kenn agsi ci yow dal ci ñun gaynde ngay jéggat di jéggat ba ci Utbatu lekk ko moom Utbatu moom di taw aboo lëxëb mi fekk njool màkk toog mu poñe ko bokk yi abu lëx abu jëxlin bokkoon ci ñi ko gën a bañ xam nga këram fu mu nekk ca makka lu mu mujjee boo demee màkka laajte këram mooy fa duusee nekk mooy kër aboo lëx jëxlin fa ñu def duusee toilette ya mooy kër aboo jëxlin abu jëxlin keroog bi muy dee xare badar abdullahi ibnu masud moo koy jekkali daf ne ko xaaral muy yónni la bala maa dee boo demee nga ni muhammad maa ngi nii di dee waaye tey jii laa ko gën a bañ mbokk yi ñooñu jàkkaarloo moom bañ ko ñun ñu ko gisul bëggu ko ñu fa demagul yàlla ñu fa dem boo fa àggee xam ne benn VIP doo nga am boo fa àggee tëraayam boobu di nga xam ne ndam kese la son um maa ngi lay nuyu si Malick maa ngi lay ndokkeel si dem maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla yokk la dëgëral yàlla sa taxawaay ci sëriñ bi kontaan nañ lool ndax sëriñ bi lay sunu lépp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 Amin. Amin. Amin.